amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk yi ñu topp di ànd ñun ci jotaay yi ñu jagleel al imaam al mahdi al muntadar alayhi salaatu wa salaam di ko leeral comme ni ko yenent sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ci ay xadiisam suñu jotaay bii mooy suñu fukkeelu jotaay ak ñaar jotaay ba weesu woon ñi ngi doon leeral xadiisu ummi salama di xadiis bu xaw a gudd buy leeral al imaam al mahdi buy ñëw ci jamono fan lay feeñee ak naka lay feeñee mu ne mujjug jamono dana am xalif bu faatu loola waral am ku génne medin ngir rawale diineem ndax xalif ba ba mu faatoo fitna day jug ak wuute diggante ñamu jiite woon kooko ci lay dawee ngir rawale diineem dem ba màkka waa màkka buñ ko yëgee xam ne kii ku ñu war a jaayante la ak moom si lañuy àndee ñoom ñépp forcé ko génne ko dem ba ci kaaba ga ñu jaayanteeg moom yàlla nag dëgëral ko ba képp ku jug ngir dal ci kawam yàlla dalay alak bokk na sa ñam yi alak mooy soldaar say jugee Shaam ngir ñëw ataake ko yàlla day mëdd suuf seen kaw ñu faatu mu xas fi leen nee na nag si la koy yàlla di yëkkatee yëkkati ay mbiram nga gis ne kuy am naataanga lay doon kuy tasaare lislaam ak maanute lay doon noonu lay nekk ci kaw suuf lu tolloog juróom-ñaari at wala juróom-ñeenti at muy soog a faatu jullit ñi daal di koy jullee ñu waxoon ne xadis bii de càllale gi ci li wér wérut ndax am na ku sa nekk ku ñu tudd turam mooy ki jële xadiis bi ci ummi salama waaye nag ñàkk a wérug càllale gii nga xamante ne moom lañuy jàngat loolu firiwut ne baat yi xadiis bi làmboo amut leneen lu koy seede ndax ñi jàng xadis xam nañ ne xadis dañ koy dëgëral ci ay seedeem ak ay yoonam ñu jukki woon nag baat yi nga xamante ne ñëw na si xadis bi ñu jot ñu jotoon a jàngal xadis yi nga xamante ne ñëw na si maanaa baat yooyu di ko leeral tam koy dëgëral bokkoon na sa mooy li xadis bi wax ne day joxe alal da koy wasaare da koy mën a joxe loolu moom jàlloon na bi si topp mooy maanute gi nga xamante ne moom lay àtte si kaw suuf dëppale ko ak sunna yenant sallallahu alayhi wa ak tasaaroo gi lislaam bi tasaaroo loolu it jàlloon na si ay xadis yu koy seede tamit li mu tudd si xadis bi ne moom day sax si kaw suuf juróom-ñaari at bu yéesee ba yées wala juróom-ñeenti at bu guddee ba gudd loolu it jàlloon na si xadis ya kon loolu yëpp lu wér la loo xamante ni ne xadis bi làmboo na ko suñu jotaayu tey bii nag ñu war a jukki li nga xamante ne nii mi ngi si biir xadis yi jotuñu woon a tudd yeneeni xadis yu koy seedeel si li weesu loola nag lañuy xool ba xam loola wér na wala wérut bokk na ci lii ñëw si xadis bi te jotul woon a jàll si xadis ya weesu woon mooy daw gi muy daw si kaaba ga ak jaayanteeg gi nit ñi di jaayanteeg moom ci biir kaaba ga ñay jug ngir gàllankoor mbiram ba yàlla di leen alak si alak woo xamante ne da leen di xasf mooy yàlla day yaa suuf si da koy ubbi ñoom ñëpp ñu daal di dugg si suuf si kenn dootu leen jisati loola jus u boobu jotuñ ko woon a jàngale si xadis yu weesu moo tax mu wax si xadis bi ne fa yaxruju rajulun min ahli almadinati haariban ila alkaaba aw ila makka fa yatihi naasun min ahli makkata fa yuxrijuunahu wa huwa kaarih fa yubaayicuunahu bayna alrukni walmaqaam wa yubcasu ilayhi bacsun min alshaami fa yaxsif aw fa yuxsaf bihim bilbaydaai bayna makkata walmadina loolu mooy li ma jot a junjune moom de ay mbiram bokk na sax ne fa ñuy jaayanteeg moom ci biir Kaaba ga la buñ jaayanteeg moom ba noppi am na ñuy jug ngir gàllankoor mbiram ñu amoon doole ci jamono jooja di ay soldaar soo xamante ne lépp lu ñu war a am ngir mën kaa faagaagal day jàppandi ci ñoom waaye nag duñ agsi si moom ndax yàlla da leen di alak laataa ñuy agsi diggante Makka medin lii ma tudd nag est lu wér la est-ce que am na lu koy seede su dee lii ma tudd dee am na lu koy seede lu ñëw si ay xadis yoo xamante ne nii ñi ngi si Buxaari ak Muslim mu ñëw si ñetti xadis benn xadis bi Umu Salama ko nettali benn xadis bi Aïcha moo ko nettali benn xadis bi Xafsa nettali su dee xadisu Ummi Salama Muslim moo ko solo ak Abu Daawud ak Ibnu Abi Sheyba ak Ibnu Rahoya ñu jëlee ko si ubaydullah ibn alqibtiya moom nee na daxala alxaaris ibnu abi rabiata wa abdullah ibnu safwan wa ana maahuma ala ummi sali ala ummi salama mu ne xaaris ibnu abi rabiata ak abdullah ibnu safwan ak man mi moom mi nga xamante ne mooy ubaydullah ibnu alqibtiya mu ne ñun ñett dañoo mës a dugg si ummi salamata ummil muminin mu ne fa saalaha ñoom ñaar ñag ñu laajandoo ko ne ko fa saalaha an iljeyshi alladi yuxsafu bihim wa kaana dalika fi ayaami ibni zubair mu ne ñu laaj ko waaw yow suñu yaay yow yaayu jullit ñi loo ñu mën a nettali si li yenent jàngale si soldaar si nga xamante ne danañ jug ngir gàllankoor benn nitu yàlla yàlla mëdd seen kaw suuf loo ñu si mën a nettali jamono jooja mu ngi tombee woon ak jamonoy Abdullahi ibn Zubayr umu salama tontu leen ne leen fa qaalat mu ne leen qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonentu saa sam nee na yacuudu caaidun bil bayti mu ne dana muslu dana jàppandu benn waay si kaaba gi benn waay dana jàppandu ci kaaba gi mu ne fa yubaasu ilayhi baasun am ñu jug ne dañ koy gàllankoor yónnee si moom ay soldaar mu ne fa ida kaanu bi baydaa min al ardi buñ demee ba nekk ci suuf su yaatu soo xamante ne nii suuf su tàlleeku la mu ne xusifa bihim si lañ leen di alagee yàlla mëdd seen kaw suuf mu ne ba yenentu waxee noonu fa qultu ma daa di wax yenentu ne ko yaa rasulallah fa kayfa bi man kaana kaarihan waaw lan mooy àtte ñi bokkoon si soldaar yooyu te ñoom dañ leen a forcé waaye bëgguñoo def liñ leen di digal ndax soldaar dana def loo xamante ni bëgguta bëggu kaa def waaye il faut mu daal nangu liñ ko digal mu ne yuux yuxsafu bihi maahum ñoom ñëpp lañuy alak alak alakandoo ñoom ñëpp lañuy ñuy mëddandoo si suuf mu ne walakinahu yubaasu yowma alqiyamati ala niyati waaye ku si nekk ak yéeneem yowmal qiyaam noonu lañ lay dekkilee ki nga xamante ne bëggul woon a jàkkaarloog nit ku baax kooki yàlla dana ko dekkil noonu ak yéeneem yowmal qiyaam kon waaye nag buy alak moom amut seette gu muy seette si mbooloo moom a nga xamante ñoo jugoon ngir gàllankoor am mbiram xadis bi muslim moo ko solo jëlee ko si um-, ummi salama xadis bu ñaareel bi muy xadisu Aïcha loola Buxaari moom moo ko soloo jëlee ko si Aïcha Aïcha nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenentu saa sam nee na yaxzu jayshun kaaba dana am ab arme bu taxawu ngir songu kaaba gi mu ne fa ida kaanu bi baydaa min al ardi suñ demee ba nekk si suuf su tàlleeku lool si kaw suuf mu ne yuxsafu bi awwalihim wa aaxirihim yàlla day alak ña nekk ci njëlbeenu armée boobu ak ña nekk ci mujj ga ñoom ñépp lay yàlla alakandoo mëdd kaw suuf mëdd suuf si seen kaw loolu kon Buxaari moom moo ko soloo nga gis kon mëdd boobu boo xoolee moom mooy nekk seede bi nga xamante ne nii Aïcha tudd na ko si xadisam comme ni ko Umu Salama tuddee si xadisam te mooy keroog ba ñu jaayanteeg al imaamul mahdi ci Kaaba ga mbooloo ma jug ne dañuy gàllan ay mbiram kenn du agsi ku ñu nar agsi yàlla dalay mëdd te mooy soldat sa nga xamante ne nii ñooy bàyyeekoo Sham ñetteelu xadis bi mooy xadisu Safiya radiallahu anha moom al imaamu muslim moom moo ko soloo Safiya nee na samitu nabiya sallallahu alayhi wa sallam ne dégg naa yenentu salaa di wax la ya ummanna hada al jayshun yaxzuuna mu ne dana jublu kaaba gi ab armée bu ko bëgg a songu mu ne xatta ida kaanu bi baydaa min al ard mu ne armée boobu buñ demee ba nekk ci suuf su tàlleeku ci kaw suuf mu ne yuxsafu bi awsatihim wa yunaadi awaluhum axirahum thumma yuxsafu bihim falaa yabqa illa lsharidu alladi yuxbiru anhum mu ne armée boobu bu ñu demee ba nekk ci susu tàlleeku seen digg la lañuy njëkk a maanaam mëdd ba foofu lay tàmbalee mooy digg soldaar sax mu ne su ko defee ñi nekk ci kanam di yuuxu ña nekk ci ginnaaw pour ne leen bu leen agsi foofa nag lay yàlla di alakandoo ñoom ñépp nga xam ne ñoom ñëpp dañuy suuf da leen di da leen di lekk suuf da leen di mëdd mu ne nag falaa yabqa du rëcc mukk si ñooñu illa sharidu alladi bi anhum lu dut benn benn yi nga xamante ne ñooy mën a tuuxal xabaar booba si ñi fekkee wut xew-xew boobu benn benn yi nga xamante ne ni ñoom ñooy rëcc ngir mën a dem nettali loola xew si bërëb boobu ñetti xadis yi nag boo ko dajalee kon dangay gis ne kon yonent sallallahu alayhi wa sallam yàgg nay ju loolee di xew si mujju jamono te mooy ña nga xamante dañuy jug ngir gàllankoor mbiru mahdi yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla da leen di alak duñ agsi kon xadis boobu ak loolu ñu tudd ci jaayante gu ñuy jaayanteeg di ba mu nekk ci biir kaaba gi ngir yàlla musal ko si pexey noon ba ku jug di ko jëmale ngir alak ko yàlla faagaagal ko loola moom xadis yi ma tudd seede la si kon loola moom amut wérante ne lu wér la si xadis ummi salama mu des kon nag lan moo wére si xadis bi loo xamante ni amuñ amuluñ ko seede mooy li ñëw si xadis bi di tudd ñenn ñi koy jaayante ñiy jaayanteeg ñoom melal leen benn melokaan mooy ñi ñu tuddee al abdal wala asaib al badal boo xoolee si lislaam loola moom amut benn xadis bu ko jàngale ndax loolu da nga fekk ñenn ñu koy wax rawatina ñi ñi tudde al mutasawifa badal dafa nekk lu ñu xam si seen si seen doxalin al badalu wal watadu ak yu ni niru xadis bii nag moom mooy benn xadis bi nga xamante ne ni ñëw na di junj lu mel ni ab daal waaye nag amuñ beneen xadiis bu ñu gis bu koy seedeel moo tax wax ji mu wax ne ab daalu Shaam ñoo ñëw di jaayanteeg moom màndargaal leen na ñoom ay badal lañ muy maqaama boo xamante ne nii am na ñu ñuñ koy tuddee si ñii euh, gëstu si tasawuf loolu moom amut benn xadis bu koy seedeel loolu mënut wér moo tax loolu moom day des day wéradi comme ni nga xamante ne junjoon nañ ko ne càllale gañ ko nettalee am na si waay joo xamante ne tudduñ turam waaye yeneen baat yi moom yépp am na lu koy seede comme ni ma ko jukkee si xadis yi weesu kon loolu day firnde ne xadisu ummi salama bi am na cëslaay si bunt bi di buntu al imam al mahdi su loolu jàllee nag kon ñu gis ne kon xadis bi junj na ay mbir yoo xamante ne jotul woon a jàll ci xadis yi ñu tuddoon bi ci njëkk mooy moom al imaamul mahdi jaayante ga nit ñi di njëkk a jaayanteeg moom ci kaaba ga lay doon si kaaba lay doon te doonte moom sax du ko bëgg waaye nag ci benn guddi lay yàlla yéwénal ab mbiram tàggatal ko aw nit yu jaayanteeg moom ci kaaba ga kon képp ku la wax ni moom mooy al imaamul mahdi te loolu amut ndax moom sax mën naa am mësul gis kaaba ga kooko xamal ne beneen mahdi lay wax bu dul bi yonent jàngale sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo delloo ci histoire al mahdi al qaxtaani mooy ka génnoon medin ñu géntal ko ne ko yow yaay al imaamul mahdi mu gëm ko ci année 1979 ngir mu dëggal loolu moom dafa dem ba ci kaaba ga ak mbooloom ngir ñu jaayanteek moom si jamono joo xamante ni ujjaaj yi ñu ngi aj ngir bu fa jugee loola mën a siiw mu ootee woon ah, moom mooy al imaamul mahdi la mu sukkandiku woon nag mooy xadis yi rek waaye même bu fekkee ne moom muhammad la tudd baayam tudd abdullah mu daw ba dem ba kaaba ga nga xam ne yooyu ay mbir la yoo xamante ni yeneen tudd na ko si lenn si xadis yi waaye am na yeneen yu bari yoo xamante ne nii dëppoo wut ak moom ndax moom keroog ba ñu bëggee jot si moom jot nañ ci moom si lu yomb ba faagaagal ko ba rey ko waaye su fekkoon dëgg-dëgg moom mooy imaamul mahdi yàlla dana ko aar aari woo xamante ni kenn du mën a dal si kawam waaye jamono jamiy génn sax nag dafa fekk jullit ñi ñi ngi topp borom bi subhanahu wa taala ñi ngi gëm yàlla islaam wàññeeku wàññeeku goo xamante ne nii tooñ fës na si àdduna si bi si àdduna bi si benn façon boo xamante ne daanaka nga gis jullit dëgg dëgg dëgg lu jafe lay doon loola nekkul woon si jamono jooja nekkul suñu jamono jii moo tax bëgg a wax ne al imaamul mahdi feeñ na ak fu waay mën a jóge ak fu mën a dëkk beneen imaamul mahdi lay wax de waaye bokkut ak bii leen tu jàngale sallallahu alayhi wa sallam si ay xadiisam bu ñaareel bi mooy ndekete al imaamul mahdi yàlla moo koy dooleel dana jug dana am mbooloo yu jug jug pour gàllankoor ko waaye képp ku jug yàlla da lay ndërmeelal te li ñuy tuddee alxasfu muy mëdd nit si suuf suuf mëdd ko lekk ko loola moom bëriwut lu koy yàlla di def di ko teg si xeet yi su ko defee benn mbooloo mu bëri lool nekk ay soldaar jugoon ngir gàllankoor mbiram loola lu ràññeeku la loo xamante ne nii amul kenn ku ko wootee gum ku yàlla defagul defal defal defal looloo gum moo tax kon woote ko beneen mahdi lay doon waaye bokkut ak bi yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale si ay xadiisam loolu mooy suñu jotaay bi ak li ñu bëggoon a jukki leeral ko si xadiis ummi salama jotaay bee di ñëw it ñu jukkiwaat beneen xadiis si yeneen i xadiis yi nga xamante ni ñoo ñëw si bunt bi هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم